dama ni sénégalais yi ñun am nañu responsabilité bu rëy ci kanam yàlla c'est-à-dire ñun am nañ responsabilité bu rëy nekk ci ay détails maintenant kenn ku ci nekk di korkoral sa kanam kenn ku ci nekk di xëcc sa kanam maa fi ne maa fi ne fii kenn ku fi ko dul yàlla fii kenn nekku fi ku dul yàlla. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV. ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. jamono yu weesu doon nañ ñaawlu coppite yu ñu nemmeeku ci suñu yenn kayit yi particulièrement permis de conduire yi ñu daal di dindi sexe te buy déterminer góor nga am jigéen nga remplacer ko par genre lan mooy genre ci définition bu simple. même ci wàllu sexualité léegi théorie bi nga xam ne moom la ñuy théoriser ci àdduna bi mooy li ñuy wax sexe boo xamante ni bu biologique la ak boo xam ne bu social la ak boo xamante ni bu bu bu psychologique la. ñoom dañuy wax ne doomu aadama ñett yooyu moo mën a am ci moom mu ne góor la ndax moom dafa juddu yor jëmmu góor wala daf ne góor la ndax société bi góor la ko jàppee wala moom góor la ndax moom ci biir boppam góor la jàppee boppam. léegi li ñuy li ñuy théoriser ci Occident tey di ci yar nit ñi mooy bi ngay jàpp sa bopp boobu mooy bi bi bi bi bi bi nekk bi nekk mooy bi bi bi wér. bi ci wér ci ñetti sexe yooyu mooy bi nga xam ne bu psychologique bi la mooy li nga jàpp sa bopp ne yow loolu nga doon yow loolu nga doon waaw bu fekkee sa jëmm leneen la loolu du problème. waroo ñëw imposé ko ne ko góor nga war a doon wala jigéen nga war a doon da ko war a bàyyi bu màggee mu tànnal boppam mooy li ñuy wax ci la théorie des genres léegi loolu bu ñu ci yaree suñuy nit fan lañ jëm. donc ñu koy jaajëfal moo oustaz Mor Kébé ñu gisoon ni nag Sénégal mu ngi ci tànk jëmal théorie du genre boobu noonu dugal ko ministère de la femme def ko suñuy permis de conduire maanaam Sénégal léegi du góor ak jigéen di dong mais góor jigéen yi ci lañ bokk jigéen gaay yi ci lañ bokk ñi dem sax ba namm soppi seen awra dooni góor wala jigéen Sénégal dafa nek ci tànk intégré leen tax ñu jël mo genre dugul ko fep ñaawlu woon nañ ko du ben yoon du ñaari yoon ay mouvement de valeur ci mel ne ànd sàmm jikko yi té babacar Mboup jiite ko doon ci def liggéey bu am solo ba tey ñu nek ci tànk amagum ndam donte xex bi nak li ci dess bari na lool li ñu nemmeeku fan yi moy ñi mujjé jot seeni permis de conduire en tout cas ñu ci baree bari defatuñ fa genre delloowaat nañ ci sexe comme ni meloon duñu nag jubilé ndax li dess ci xex bi moo fouf ndax suñu ambition moy goor jigen dootul am Meli, senegal mais li ndab la boo xamante prouver que ni xex rek am solo ñun nak lu ndaw ndaw lañ ci xex boobu nonu mais dafa am benn jëm jo xamanteni depuis juroomi weer japp juroom benn weer dafa bayyi bépp activité jël xaalisam ak collectif ànd sàmm jikko yi wër senegal gep ngir informer kilifa diine kilifa aada yi projet seytaane bi nga xamanteni ak mbiru goor jigen bi fi nguuru senegal bëgg samp ba tay yalla may gum ko ci ndam jëmb jooju mooy Ababacar Mboup ci moom la ñu bëgg def taxaw seetlu tey ngir delloo ko njukkal waaye itam expliquer sénégalais yi li mu liggéey weeri weesu sacrifier temps njabootam liggéeyam ngir li nga xam ni mooy mbon bañ a sax ci mim réew. delloo njukkal Ababacar Mboup nag mooy delloo njukkal bépp membre ànd sàmm jikko yi rawatina ñi nekk ci kanam muy oustaz Matar Sarr professeur Cheikh Oumar Diagne imam Babacar Sylla oustaz aadama Mboup ba ci Abdou Karim ndax ñii yemuñu rek ci wax. xëy na ñu bare bari bu ñu leen gisee dañuy jàpp ni gars yi daal dañuy kaas rek mais dañuy bind ay rapport di tëgg ay mémorandum di wër ci kilifa diine kilifa aada yi di leen xibaar di xew ci réew mi. pour l' instant amagum nañ premier ndam prochaine étape bi nag bi gën mag mooy ñu criminaliser li nga xam ne mooy mbirum góor jigéen senegal ba kuñ ci jàpp def ak yow na ko diine santaane parce que suñu réew ñoo ko moom. ni France amee droit képp kuy polygame maanaam góoru ñaari jabar ñett ba ñeent doo fa am kayit wala doo fa dugg ñun tamit noonu la ñu war a amee suñu fulay bopp ne bépp góor jigéen wala jigéen ak jigéen buy sëy sa biir doo fi lëmbe mën nga nag làqatu def li ngay def wala nga génn Sénégal defe ko ca àll ba dinañ ñëw ci fan la ñu toll ci projet de loi boobu noonu ak bés bu mag bi nga xamante ni ñu ngi koy waajal ngir neenal pexe seytaane yi biir Sénégal waaye tam lancer message bu am solo ñi fi nekk di doole góor jigéen yi ci biir réew mi ndax Sénégal tamit bu ñu bëggee mu mel comme ñun ni ñu bëgg mu mel faaw ñu ànd ceeg ay valeur faaw ñu ànd ceeg jikko yu baax. mais nii ñu taxawee ni ñun jaami yàlla lañ ba noppi bëgg a ŋarale tey ñu ngi fii suba ñoo ngi fee ma ni loolu du dëgg du yoon nañ ko seetaan te bàmmeel a ngi ñëw ah. bàmmeel mi ngi dikk te kenn ku ci nekk wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati farda taxawaay Ababacar Mbuum nag ci sàmm valeur biir Sénégal tàmbaliwul tey yaakaar naa ne ñu bari ñu ngi fàttaliku image bi nii defoon na le tour des réseaux sociaux ndax li muy symboliser moo bari dafay symboliser dal dafay symboliser yar ak teggin dafay symboliser itam nit ki moo xam nu mu mën a taxawoo sa kanam donte violence lay incarné donte dafay fësal ñàkk worma yow warul mën a soppi dara ci ni nga melokaanoo. image bi c'était en 2016 ca place de l'Obélisque manifestation bañ fa amaloon ngir xeex boroom ñaari tur yi jamono jii moom Ababacar Mboup teewoon en tant que président ANCAR muy association pour une nouvelle citoyenneté africaine. kuréel goo xamante ni li ko tax a jóg mooy tàggat doomi Afrique bi ci li nga xamante ni mooy valeur valeur yi ñu suñu maam yi bàyyee waaye itam sukkandiku ci diine moo xam bu mënti doon ba ñu am modèle de citoyen boo xamante ni du doon simple spectateur wala tàccukat waaye dafay bokk ci lay doxal réew mi association bii di ANCAR doon dox ci loolu te ba tey mi ngi existé Ababacar Mboup nekk seen président donc ku yàgg engagé wu la ci réewam parce que moom li mu gëm mooy ñun jamono gi ñu toll dafa dajale yàqu-yàqu yu baree bari yoo xamante nii bu ñu moywul xar ci suñu tànk tubéy du ñu mucc ci mbooleem safaan yi mu mën a jur. ñun dafa mel ni dañoo boole mbooleem la doon safaan ci jamono yëpp ñu dajale ko ñun suñu jamono. amul yonent bu mas a dajeek lu garaawe nii amul nitu yàlla ku mas dajeek lu garaawe nii ci fànn yëpp nag. ci ko xam laa wax nag ko xam. Ababacar Mboup ñu gën ko nag ràññee ci collectif ànd sàmm jikko yi collectif boo xamante ni moom moy coordonnateur bi ànd sàmm jikko yi yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté ci biir réew mi mbooleem événement yu fi mës a xew jëm ci nasaxal wala tilimal réew mi wala yàq ay valeur collectif bi taxaw na temm ngir jàmmaaru loolu noonu. organisé woon nañ fi journée xeex mbon ñaari ci ginnaaw ndax demoon nañ ba tollu benn niveau boo xamante nii ay artistes yu siiw siiw dañu tàmbali woon di promouvoir mbirum góor jigéen bàyyi kuréelu borom ñaari tuut yu mag a mag di leen félicité di leen delloo njukkal yaakaar naa ba ci ànd sàmm jikko yi taxawee def ci li ci war lu baree bari wàññeeku na. wàllum franc-maçonnerie également ànd sàmm jikko yi ak seeni membre moo xam Ababacar Mboup wala Cheikh Oumar Diagne bokk nañ ci li sensibiliser sénégalais yu baree bari ci mbirum seytaane yooyu noonu nga xamante nii bu ñu seetaanoon mu sànq suñu ndaw yu baree bari résultat bi tey mooy képp ku jóg di def mbiru seytaane yooyu noonu automatiquement daañ la mën a identifier te bu njëkk loolu amul woon maanaam lépp luy secret ci mbiru seytaane yooyu noonu dañ ko démystifier léegi bu ñuy tamit sàkkal pexe diine di ko néewal doole si réew moo xam daara yi wala jigéen yi muuru ànd sàmm jikko yi ñooy nekk ci kanam. ba tax na kon ñun ñi nga xam ni. ñoo fi nekkal te am lu tax yàlla sàkk nu ba noppi bàyyi nu fi li tax mu sàkk nu xamees na ko waaye li tax nu bàyyi nu fi ci temps bii à moment précis am na lu ko waral parce am na rôle buñ ci war a moo tax en tant que sàmm jikko yi mu sol dàllam wër Sénégal gannaaw bu mu tënkee ci ay kayit programme ak pexe yu nguuru Sénégal di teg ngir dooleel seytaane ci biir réew mi ak borom ñaari tur yi dajale preuve yépp nag wër Sénégal bu ñu jëlee capitalu réew mi quatre départements yëpp Ababacar Mboup ak ànd sàmm jikko yi wër nañ ko organiser ay ndaje moo xam Dakar moo xam Pikine moo xam Géejawaay ak Rufisque ba ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar que jàpp nañ ne xeex bi ndaw yi ñoo ci war a gën a jiitu rawatina ñi nga xamante ni ñoo war a yore réew mi ëllëg. bañ ci noppee itam gis nañ ak kuréel gëbi imaam yi biir Sénégal présenté leen projet góor jigéen bi fi nguuru Sénégal bëgg teg ba ñoom imaam Dame signé projet bi war a tax ñu criminaliser wàllum borom ñaari tur suñu réew. ñu gis ni tam wàllu ngor jigen du wajangu kesse moko dak wa waa bi tam dañu dak mbir yu mel ci la keur mbub ak delegation rencontré abbé Alphonse birum dour ci archevêque bu Dakar di monseigneur Benjamin yai, wa église bi tam adhéré ci combat bi mais comme ko xex bi yamu rek Dakar ànd sàmm jiko yi doxantu mbour région bu Thiès amal fa ndaje sensibiliser domi aadama yi ngir ñu mëna jallale message bi ci askan wu yépp Diourbel itam wa keur maam tierno kanji dalal nañ collectif ànd sam jikko yi ngir dolel projet de loi bi nga xamanteni bëgg nañ ko jëmal gannaaw Diourbel Ababacar Mboup dem na fatik précisément Foundiougne fofé nga xamanteni kilifa yi ànd nañ ci projet bi nga xamanteni bu soté borom ñaari tur dotul lembi Sénégal bañ fo nopi duggu kaolak mo xam ñoro ba ci Ngengeneew waxtaan ak kilifa yi présenter lan mo tax ñu bëgg tegg ben projet de loi ngir mbirum goor jigen ñu mën ko dàq Sénégal

ba du sud du Sénégal kilifay Kolda itam ànd nañ ci xeex bi fulaadu gépp moo xam ne dina yor fulaa ba Vélingara kilifa diine kilifa aada yi nañ projet ànd sàmm yi. Kolda ànd sàmm jikko yi tere na moham Saraya Salemata, ak ngir population bi adhéré ci programme bi nga xamante ni moo nar a nenal pexe jigéen yi biir Sénégal. après Kédougou Tambacounda également accueillir na Ababacar Mboup Goudiri Kidira Bakel jàpp kilifa yi xamal nañ leen pexey def ko du ñaawteef yi ba ñoom ñëpp ànd ci projet bi war a criminaliser mbiru borom ñaari tur yi suñu réew. bu weesoo Tamba waa Matam particulièrement Ourossogui Ababacar Mboup présenté na leen mbir yi kilifa yi daal di koy approuvé de même que waa Ranérou. waa région bu Louga ñoom itam ne kenn du leen juddu ci xeex bi daal di nañuy dalal Ababacar Mboup ànd ak moom ci projet bi mbooleem kilifa yi ñu waxtaanal daal di approuvé projet de loi bi nga xamante ni namu nañ ko saxal. podor également and sam jikko yi jot nañu waxtan ak ñom leer leen pexe def ko duñaw bi fi suñu rew ak na lañu mëna fago ba dal di koy nénal kenn du wax itam kilifa sénégal te du tuddu xalif généraux yi ababacar mbuub jot na rencontré ñu upp ci ñoom bala majorité ci suñu xalif généraux yi dal di nañu signé projet bi ngir ñu criminaliser li nga xamanteni moy walum goor jigen suñu rew li khalifa lew na ña moko signé lii xalifa bu àndulaay bii ko xam Casamance xam ni mu demee xam ni imam Fansu Fansu Bodian mm-hmm. ñoom moom lañ jàppe seen kilifa mm-hmm. muy koo xam ne si mboolem Casamance gépp foofu dugg dañ naan la ñun mooy suñu xalif général mm-hmm. donc moom aussi moo signé moo signé bi euh, xalifa cene ba euh, Cheikh Abdourahim moo signé bi euh, xalif général des xaar bi Cheikh al Bekay moom moo signé moom moo signé boobu xalifa bu Medina Gounass bi xalifa Medina Baye mm-hmm. euh, Cheikh Mouhamadul Mahi moom moo signé bi bi sëñ Babacar Sy Mansour mm-hmm. xalifa général des Tidianes moom moo signé bi mm-hmm. donc bii par exemple bu euh, amir bu euh, Daaru Istikhama docteur Ndiaye moom moo ko signé bi Euh, signature bu jamaatu Ibadu Rahman. Mm-hmm. Euh, Amir Dia. Euh, mu des benn boo xam ne wala ñaar yoo xam ne jotaguñ ci mm-hmm. benn bi mooy xalif général de Layen. benn bi mooy xalif général de sëñ Muntaxa. Mm-hmm. donc danañ dem jëli seen jëli seen bos. incha allah war ko déposer nag. jëbal ko gouvernement bi à travers parce que gouvernement ñoom ñooy def. projet de loi donc ñoom ñoo am sañ-sañ bi ñoom la ko yoon jox ñu jébbal leen ko ci turu kilifa diine yi ni leen kilifa diine yi nga xam ne ñoo njabootee réew mi yëpp yilif ñi fi nekk ñëpp yilif leen yéen aussi te xam naa ne gars yi xam nañ ci dara fi nekk nii ndax bi ñu jaaxlee fi ne ñoom ñëpp dellu nañ ci kilifa diine yi léegi nag ñooñu ñoo bëgg ngeen arrêté agenda bi te it mbirum góor jigéen ñu tere ko solennellement ci pencum Sénégal. donc yaakaar naa ni gis ngeen parcours bu mucc ayib bu coordonnateur ànd sàmm jikko yi def muy Ababacar Mboup diggante novembre décembre 2020 jàpp janvier février mars ba ci avril 2021 bi ñu nekk. six mois juróom benn weer mu wër Sénégal gépp def des milliers de kilomètres te ñu bari yëguñ ci woon dara donc yaakaar naa ni ñu bari comprendre nañ lan moo tax ñu jagleel ko benn vidéo spéciale kenn la ci jàmbaari Sénégal yoo xamante nii ñun ñëpp duñ ko amee njukkal ndax mooy doomi aadama yi nga xamante nii dañuy xeex te xaaruñ ci dara soxlawuñu itam publicité wala ku leen gërëm moo tax bi ñuy def vidéo bi jéemuñu déggoo ak moom tàgguñu ko itam dañ ko yàgg topp di xool li muy liggéey Sénégal ñu daal di dajale lépp nag denc ko bàyyi ba tey pour xamal ko sénégalais yi ngir ñu amat yaakaar ci suñu réew te xam ne jàmbaar yaa ngi fi ba tey suñu réew ba tey am nay homme de valeur. ñoo ngi koy ñaan kilifa yi fi teew lii nañ ko saxal amul dara lu dox suñu digganteeg ñun maanaam différence d'idéologie ci gisin xalaat bu mu mën a doon mais yàlla ko ëpp xanaa mais yàlla war naa mën a doy waliif ñu toog te yàlla ji ñuy yaakaar yërmande kenn la yonent bi alayhi salaatu wasalaam kenn la téere bi yàlla bii lenn la jubluwaay bi lenn la ndigal yi lenn la tere yi lenn la kon nañu waaw. léegi nag liggéey bu muccaay bi mu def ak waa ànd sàmm jikko yi wër Sénégal xamal ñi xamul rax ci dolli tëgg benn projet ngir ñu mën a criminaliser wàllum góor jigéen bokk na ci li tax état bi daal di réagir profito dindi genre ci suñu permis de conduire ndam bu njëkk la nag mais xeex bi ba tey dafay gën am solo ndax mbir yi yamul rek ci génne genre ci suñu kayit ak yenn institution yi déedéet yamul foofu noonu. loi la ñu bëgg ngir mbirum góor jigéen nekk crime biir Sénégal góor jigéen waru fi am ndam di fam jàmm waru mën a nekk moo tax ñuy waajal bés bu mag a mag le 23 mai 2021 bii place de la nation ak fépp ci Sénégal ngir ñu wan àdduna gépp que suñu réew mbiru borom ñaari tur yi du fi prospéré ba bépp góor jigéen bu doon waaj a ñëw Sénégal ngir def sa yëfi saay-saay boo ci déggee bët nga ne kat fii wóorul xaaral ma dem làmbi feneen. 23 euh, mai ànd sàmm jikko yi daa woote quoi une mobilisation forte très forte même pour képp koo xamante ni gëm nga ngay chrétien di musulman gëm nga ni Sénégal dañ ko war a ci valeur ci dignité ci fulla ci donnu ndono càmm ndonol Serigne Touba càmm ndonol El Hadj Malick càmm ndonol jàng bi jàng càmm ndonol diine l'islam càmm ndonol même ceddo yi xam ne ñun góor jigéen war a fay am baat te du fi am baat te dañ ko war a

képp koo xam ni gëm nga yàlla gëm yonent bi gëm bis penc ba képp koo xam ne si xam nga ni nit moo am responsabilité ci kaw suuf képp ku am valeur képp ku gëm valeur ñoo ngi lay woo le 23 mai massivement góor jigéen mag ak ndaw ñëpp génn. di jaajëfal bu baax waa ISM Pro donc jàppaleen date bi daañu ko wéy di ko fàttaliwaat. parce que rassemblement bu mag la ñu bëgg amal lancer benn message bu fort pour ñuy jàppale góor jigen yi lancer itam message àdduna wërngal kep que ni Sénégal wul ngir dagalal biir góor jigen au contraire fi góor jigen bu fi nekk sax da ngay nekk en danger li moy objectif bi bu ko défé nak ñu dal di koy mën criminaliser dugal ko ci suñu loi ba góor jigen du mëna am jamm Sénégal kon taxawsel bi tay lolu woon ñi ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jangat jaa ngeen jëf